mais bu ñu jógee ci loolu gis nañ ñu daanaka làmb tijji na. waaw Ouzin làmb mën nañu wax ne tijji na tijji na mais xam nañ ne bëreet bu gàtt la la tijji. waaw lu lu lu compliqué daal fi làmb tijjee doon nañ ñun ñëpp doon nañ yuuxu pour mu tijji. tijjil tijjil tijjil nañu làmba ji nee nañ la première lay tijji ku bëgg promoteur bu bëgg mën nga dem seen nga régulariser combat nga tëgg mais ban façon la ñuy tegee làmb bii ko loo masul am si làmb. donc loolu aussi dafay laaj ay ay toog waxtaan ak ay jàngat yu bari. Mm-hmm. man xaw na ma jaaxal parce que doon nañu wax nañu ibbi làmb ji ñu def ko huis mais façon bi ñu koy defee huis clos ce que en tant que mbër yaakaar nga ni promoteurs yi dinañ dinañ ci dugal seen xaalis wala dinañ investir ni ko gars yi di waxee est-ce que tam bu ñu ko investir est-ce que dinañ ci génn. bon ah yaakaaruma ko de bu dee xel pour xalaat rek loolu moom wax dëgg yàlla yaakaaruma ne promoteurs yi moitié bi sax dinañ dem di tëggi làmb parce que niñ ko façon bi ñu ko ubbee dalul xel parce que tëb tëb rek tey jii ko par exemple ñun CNG ñooy suñu njiit ñooy suñu kilifa. tëb tëb tëb rek ne ñoom ubbi nañ làmba ji bon doy na waar doy na waar je pense bien que ne bi ñuy ubbi làmba ji waroon nañ oor ñi nga xam ne tey jii ñooy investir si làmba waxtaan ak ñoom si ban formule lañ jëm ba pare. mais tëb tëb rek ubbi làmb ne le premier te oowuñu promoteurs yi waxtaan ak ñoom je pense que promoteur bu si dem aussi da ngay xaru rek. am na ñu ko mën nag am na ñu ko mënul quoi doone ñëpp quoi. am na ñu ko mën am na ñu ko mënul am na ñoo xamante ni jotoon nañu taxawal combat ñi seen combat desoon na benn fan ñi seen combat desoon na deux jours ñii seen combat desoon na une semaine ñii seen combat desoon na un mois bu ñu toogee toog ñu ne fii ak euh, presque un mois wala fii euh, un semaine làmb ji tijji na est-ce que mbër yi nga xamante ni amaguñu combat wala est-ce que ñi nga xamante ni laalaguñu woon avance comme sa classe gi yaakaar nga di ngeen bëri ci saison bi. non ñi amul woon moom cest à ku si ñi amul woon combat ku si am xel sax sa xel sax warul nekk ci combat pour bu ñu waxantee dëgg rek parce que boo xoolee dat yi fi nekkoon ñi amoon combat bu ñu tàllalee date bi yëpp mënuñu fi bëri ren parce que boo xoolee tey jii le premier kañ la si une semaine koor gi kañ la le treize donc un mois treize jours la ñuy la ñuy la ñuy tëgg ñaata dimanche yi am ak ñaata samedi. ah donc. man pour man da man da wax dëgg yàlla waxuma dinaa bëre wala du ma bëre mais ay garantie yu wóor moo tax may jël avance jàmbur di ko di ko bëre quoi parce que xanaa peut-être mën nañ signé combat ñu ne déwén la ñuy bëre quoi mais boo xoolee combat yi fi nekkoon bu ñu waxantee dëgg rek man pour man avant ñuy ubbi le promoteur le le premier parce que ñoom le premier bi tëbuñu tëb rek jàpp ko lu ñu waxtaan la mais durée waxtaan boobu mënoon nañ ci jël yan date ñoo amoon combat yan boor ñoo ci waroon bëri ñu ñu ñu arrangé ko boo xam ne. même bu ñu jàpp ne le premier la la la ñuy ubbi officiel pour ku bëgg ñëw tëgg mais bi ñu génnee la premier ti boobu waroon na fekk aussi mbër mu si nekk date nga xam aussi dat exacte bi nga war a bëri parce que tey ji le premier yan promoteur ñooy tëgg le premier manul ne làmb kenn da ko mën a tëgg une semaine bu ñu waxantee dëgg rek ña ko man bari na bariwul book ñi mën a tëgg làmb nii ren jii bariwul bariwul parce que tey ji Ouzin huis clos am si làmb Sénégal ñu indi ko. yow tey ji par exemple nga jël sa xaalis. à peu près rek quoi pour bañ a sori nga jël 10 millions nga investir ci làmb nga ne da dem si huis clos yan base ngay defee huis clos tey jii mbëri jot am combat lan moo tax promoteur tëgg leen seen mbooloo la. Mm-hmm. léegi mbooloo moom buñ ko éliminer mais dafa am lu lu dugg Sénégal lu dugg si àdduna bi yëpp muy mbas mi fi dugg ñëpp aussi di ñaan mu gaaw fi jóge bu fi duggee nag ñu ne dañuy dem huis pour man état bi am na am na am na lu fi nekkoon pour Covid bi. pour man am na am na mesure yoo xam ne war nañ ko génne wala am na moyens yoo xam ne war nañ ko mën a génne cest à séddale moom mënul mat ñi dañuy am lii ñii am lële mais waroon nañ dem ci CNG teg fa yenn moyens yoo xam ne CNG bépp promoteur buy tëgg dina am nu muy taxawee ak yow ba maanaam affaire bi wàññeeku tuuti. parce que mën a ñemee. parce que huis clos bu ñu koy wax moom lu si bari sponsor moo tax te nekkatul si làmba ji bu ñu waxantee dëgg rek promoteur yi fi am sponsor bu mu sañ a def huis ah xëy na mën na am mais man gisaguma ko. beneen bi mooy mbooloo mi amatu fi mais léegi kon li fi nekk mooy état bi dañu ñoo tëjoon làmba ji durant presque un an xaw un la presque boo xoolee le 14 mars lañ ko tëjoon la quinze mars gàmmu gi dafa doon bëri donc mars lañ koy ubbiwaat donc un an état bi nañu xool ñoom nan la ñuy taxawee ak CNG aussi CNG dimbali promoteur yi ñu am fitu tëgg loolu mooy yoon mais amul benn promoteur. doon naa seetaan avant Covid bi gars yi naan huis clos pare pour tëgg nañ dem tëgg man de pour mun bu sama xalaat bokk li ma gis dama jàpp ne ki fi def benn face to face muy Gaston Mbengue rek moo fi am peut-être moyen wala fitu dem tëgg làmb eh, parce que man waxtaan naa na ay promoteurs yu bari ñu si bari bi ñu jàppee le le premier noonu sans aviser leen sans waxtaan ak ñoom ñoom xamuñu fa lañ jëm ñenn ñi lan lañ wax ku mën na dem man manuma te bari na ci ay morom quoi. Eh, donc état bi nañu accompagner CNG CNG accompagner promoteurs yi ñu def huis clos ñu bëre làmb. su ñu ñu jugee ci ci CNG bi jugee ci promoteurs yi damay ñëw ci mbër yi ndax dañ ciy gis mbër yoo xamante ni euh, jàppale bu demeewul noonu te laaloon nañ avance nga toog un tax ku ne xam na ne avance mbër boo ko yoxee mbër boo toogee deux mois boo ñëwee ñaata ne ko ñaata nga desee mu ne la jeexal naa mu toog presque un an yoo xamante ni simeekuwul bëriwul di entraîner jëmale kii nga toog benn une semaine boo xamante ne nii toog rek ne ko damay tijji làmb ji est-ce que mbër mi dina pare physiquement wàllum entraînement wàllum mystique ci lépp est-ce que dina ko pare pour mën a toog euh, préparer benn benn benn deux semaines wala benn un mois pour dem sëgg bëri est mbër mi dina pare en tant que mbër yow. non mais loolu moom yombul. gis nga c'est-à-dire il faut aussi ñun tamit mbëri am na loo xam ne dañ koy comprendre muy Covid bi si ñëpp la dal dafa dal dafa impacté promoteurs yi parce que seen xaalis dañu jël teg ka te xamuñu woon fan lañ ko teg mbëri aussi jël seen xaalis aussi ñoom investir ko fenn tey jii mais cas force majeure moom bu amee maanaam métit bi fépp lay fépp lay frappé si si huis boobu aussi du ñàkk am na mbër yoo xam ne force dañuy allégé waat seen cachet force parce que soo ko deful aussi doo bëre ah man de su ma nekkoon si position boobu. nu ma def fut bëre rek ba te contrat boobu tàkkaliwu ma ko rek man man man man dama koy def wax dëgg yàlla mais nag aussi am na mbër yoo xam ne tey jii c'est-à-dire Covid bi ñoom ñoom la gën a impacté mooy mbër yi nga xam ne par exemple à 15 jours moo desoon seen combat wala à un mois ñooñu tey jii fa la ñu jëm ñëpp bu pare pare woon nañ si parce que man j'en ai un témoin ku si mel ni tey jii gàmmu gay la 14 lañ tëj le 15 la waroon bëre maanaam ay añam lépp pare woon na pour te ku pare pour añ rek pare nga pour bëre ji. donc ñooñu pour ñu bërewaat aussi dina laaj aussi staffu mbër yi ak mbër yi nga xam ne ñoo si ñëw nag ak contrat ak ak ak promoteurs yi ñu toog waxtaan ku si nekk xool nan ngay dimbalee sa morom ba affaire bi mën a réussir loolu rek moo fi sës quoi. loolu moo fi sës mais yow fi mu toll nii euh, d'accord nga ci ñu ibbi ko. pour mbër yi mën a tàqali ko promoteur promoteur mën a tàqali ko ak mbër yi. si loolu loolu loolu mooy yoon loolu mooy yoon dañ ko war a ubbi parce que tey jii imagine un an un an ngay entraîné wala plus de un an ngay xamoo kañ nga koy pratiquer dafa dafa dafa metti doo xam sax ban ban ban planning ngay jël pour entraîner doo ko xam man leer na ma ne bi ñu xëy la première bi la ñu tijji am na mbër yu bëri yu tiit non da tiit parce que tey jii imagine un an et bu fekkoon yow nga am benn relâchement bi ci entrainement bi ñu ne la tey jii par exemple le quinze ngay bëri le quinze mars fan nga jëm fan nga xay préparé manul nekk du si moyen du si du ci état du si dara donc dafay dafa dafa dafa dafa doy waar quoi dafa doy waar. Hmm. man daal li may wax sama mbokku mbëri nañ ñu gor rek ku ci parewul puusal sa date ba pare. ku ci parewul puusal sa dat ba noppi. parce que làmba yemul yemul yemul tey. làmb yemul yemul tey mooy mbër mu nekk da nga am mais tey jii su dee bëgg finir ak ak ak contrat boobu ba tey jii mu leer na la yow dem bëri ñaaka yaakaar ak maa leen di wax ne leen ah rek mën fex leeral koo xamante ni bëgg a seeti sa yaram.